asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki al ibadatu wal xidma ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziara ci waxtaan wi nga xam ni ubbi nañ ko fas ci yéene waxtaan tey leen bëggoon a yëkkati ay kàddu eh, nin ko xamee nag muy réew mi nu bokk ak diine ji nu bokk tax ñu yëkkati suñuy kàddu li nga xam ni mooy li am yàgg nañ koy junj ci jamono bu yàgg a yàgg yàgg di ci wax ba li nga xam ni tey moom lañu toll diggante àllarbay jëm démb ji ak alxamisi tey jii muy coow li am ak ni mu doxe ndax nag alxuraan moo ni afala taqilun ama ndox yéen dangeen dul xalaat kon yàlla moo ñu xalaat loo jox ñu ay xel nag daf ñoo jox ay xel ba noppi bëgguñu xalaat kon bu bëgguloon ñu xalaat duñu jox xel daf ñoo jox xel ba noppi ñu nag dee leen xalaat tey lii nga xam ni moo xew nga xam ni diggante ñaari sénégalais la ñoo ko séq nga xam ni am na ku nu jiiñ am ku ko jiiñ ñu war a dem rek toog ci joon ñu àtte leen yëf yi jeex foofu la waroon a yem waaye ba yëf yi ne tëll ba tey maanaam mbooloo min ko jox ak doole jëm jox yëf yi te am na kaa yu gën a garaaw fopp ci senegal kaa yooyu te mosuñoo jox loolu mbooloo mi mosuñu ko jox coow lii kon am na lu xew moo tax ma bind ay na nadhab ñun fan lañu jëm ana fu nu jëm ndax ñoo dëkk réew mi di doomi réew mi même ñi dul boo doomi réew mi te na ci réew mi di liggéey daanaka lépp lañu gàllankoor lii nag ni mu jarale armée bi jarale ko takk der yi jarale ko nit yoon yi ba mu demee nii mu demee dafa am lu ko jiitu loo xam ni yàgg nañ koy wax moo tax mu dem ba nëgë ni ñu naan sëriñ si lii sëriñ si lee te arme bi bu jógoon na mu war a jóge ci artu ñi nga xam ne ñi ngi jël ay kàddu yu ñaaw di ko jëmee ci sëriñ si te réew mi jafe-jafe bu nu mën a am ak lu nu mën a kii dañuy dem di toog ak sëriñ si di sàkku seeni xalaat ak a sàkku seeni ñaan ñu am ñu nekk ñoo xam si jamono ju ne seen liggéey mooy wax lu ñaaw jëme ci sëriñ si nii ñu jóge ci mbir mii justice jóge ko ci mbir mii armée bi jóge ko ci mbir mii yitte jooju buñ ko joxoon ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi ci ci ci internet bi lu ne ñu ko wax sëriñ si kon defe naa ni duñu agsi fii kon mbir mi danoo yor doole joo xam ne dañuy xool fu nu neex rek ñu jëmee ko fa te it lii mooy li nu bëgg mooy ñu demoon ba minimiser wàllu sëriñ tuutal ko ñàkkal ko solo ba fi mu toll nii bu demee ba ëllëg bu sëriñ si ne toog leen kenn du tu toog bu sëriñ si ne noppi leen kenn du tu noppi ndax lu ko waral la jiitu mooy ndaw yu nu bàyyi ñuy wax lu nekk ci sëriñ si te ñu dégg ko xam ko jéemañu ci dara coow lii doole jii ñu ci def yitte jii ñu ci def buñ ko defoon ci loo lale coow lii du am coow lii kon du am buñ ci dellusoo nag ci coow li mooy dem na ba mbir mi ñu naan ki ni ki nu jiiñ dana wuyu ji ak du wuyu ji ba yàgg mu joxe bis ni dana wuyu ji muy dem di wuyu ji yoon mi ko woolu woon ni ko ñëwal ñu teg mbir mi ci yoon mu jug moom sàkk aw yoonam waa yoon ni ko yoon wii doo fi jaar yoon wee ngay jaar ndax loolu yoon la ba noppi nag jël yi fi tudde ko trouble à l'ordre public te buñ dee wax dëgg rek te yàlla tax yoon mii tere trouble à l'ordre public àllarba le 3 mars 2021 yoon moomu moo indi trouble à l'ordre public ndax gone yi nga xam ne dañoo yor seen i tànk topp koo xam ni oto la yor kooku buñ leen mayee tuuti oto ñooñu dañuy wëññeeku ñooñu dañuy wëññeeku ndax oto mënta ànd ak nit ci ko xam ne nga am soxla sooy doxi ñu toog di la xaar te yow yaa ni maa ngi ñëw kooku doo ànd ak ku yorub tànkam ngeen di ànd di dox benn allure ta nekk kon nit ñi nanu xalaat te nanu xam ni ñun ñoo bokk nekk ci réew mi lu mën a dal ñenn ñi nga xam ne am nañu kàddu wala ñenn ñi nga xam ne am nañu kàttan wala ñenn ñi nga xam ne am nañu mbooloo kon ki amul kàddu amul kàttan am mbooloo loola mën na koo dal kon nanu bokk ñun ñëpp taxaw di xalaat te lii fa mu jëm baaxul kon nit booy woote yoon danga war a nekk ci yoon tey tege nit tey tege ci yoon te bañ a wàcc yoon yii ñu fi gis nag ñu di ko def ñenn ñi gis nañ ko fi ay yoon yoon assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu